Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal leen nag jàmm ëtt yéenekaay yu bëri eh, tey nag faat bakkani agression ak ñàkkaaraange gi am ci réew mi moom lañ xëyee tey ubbil journal bii di réew mi quotidien police jël na ay matukaayam yëpp ngir xeex ak sàmba boo yi journal bi ne am na ab opération bu am solo bu nga xamante nag def nañ ko démb ba teg loxo ñeenti téeméeri doomu aadama ak benn benn commissaire bu alal traité nee na nag foog nguur gi jox carburant bu doy ñii di alkaati ñu mën a xeex ak phénomène boobule les échos yéen kaay ñëw gi ñun nag ci tas gi ñu war a tas HCCT ak CSE plénière nag lañ convoqué ca pencum ndaw réew ma altine bi di ñëw yem ñaari fan ci weeru septembre ci mbir moom le nag ñi ngi xaar bu baax position wu taxawu Sénégal Abba Mbaye di député pare ci taxawu Sénégal nee na ñoom nag seen tànneef duñ ko sukkandiku benn yoon ci bu Benno Bokk Yaakaar wala bu Pastef waaye nag laaj ay doomu arme yi nga xamante nag yéen a bokk benn parti ngir ñu seppi seen loxo ci mbir nee na loolee nag mënu koo nangu nangu te lu doy waar la soxna ba député pur moom nag nee na ñoom dinañ jàppale clé di njiit réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba mu respecté engagement yi nga xamante nag jëloon na ko ci campagne électorale bi lee Sud Quotidien foofu la teg baaraamam ci tasub assemblée nationale journal bi ne tasub assemblée nationale googule nag conseil constitutionnel tontu na Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci laaj bi nga xamante nag laajoon na ko fan yee ñu génn nee na ko nag fukki fan ak ñeent bi di ñëw njiit réew mi mën soleil yéene kaay ñëw ak ñun ci nag moom la noo jëfandikoo ki dogal ak juróom-ñaar jël nañ ko ci réunion bi nga xamante ni ilimaani jëwriñ di Ousmane Sonko moom moo ko doon jiitee nee na nag faaw ñu wàññi facture état bi ak bu administration bi 24 heures yéene kaay ci mbir moomu nag la teg baaramam di réunion interministérielle bi nga xamante ni ilimaani jëwriñ di Ousmane Sonko moom moo ko doon jiite démb nee na nag ñëwaat na bu baax ci yorin gi nga xamante ni nag moom lañ yore énergie bi ci réew mi ak naka lañ a def ba wàññi coût bi bokk nañ ci tamit bu administration publique bi moom ilimaani jëwriñ ni nee na facture courant bi dafa seer loolu ndax ci ñetti weer yi rek xayma nañ ko ci juróom-ñaar fukki milliards ak benn te li mu nemmeeku bëgg ko fee dindi moo di bëri bu ci nekk day am frigo bar am machine à kafe am tele nee na loolee nag mënta nekk foog ñu xoolaat mbir mi nak lañ koy mën a wàññee les éco yeneen kaay ni mbir moom nag foog ñu càmbaraat ko bu baax ndaxte bureau boo dem di nga fa fekk ay appareil électronique yi nga xamante ne nag day jël courant bu baax rawatina bâtiment administratif yi nga xamante ni li ni consommé ci courant dafa bari loolu Sonko nag mi ay calcul yu am solo ko ngir wàññi anam bi nga xamante nag noonee lanoo jëfandikoo wàllum appareil électroménager yi ci biir administration publique yi nee na nag foog ñu installer ay imprimante de réseau au lieu imprimante yi nga xamante ni nag bureau bu ci nekk boo duggee fekk fa ay réfrigérateur ak ay machine micro yi nga xamante ni nag ñëpp kay bokk loolee la Sonko bëgg samp ci bureau administration publique yi nga xamante nag kenn ku ci nekk doo am sa bos yow kese Ousmane Sonko di élimaani jëwriñ yi nee na ci biir journal bii di Les Échos yéenekaay dina tere it télévision yi nga xamante ni moom la ñuy fekk bureau bu nekk sof bureau directeur généraux yi ak euh, bërëb yi nga xamante ni ñëpp fay daje ca jamono jooj nag journal bii di Le Quotidien ñëw ñun ci relation bi dox si diggante Sénégal ak FMI Fonds monétaire international journal bi ne kilifay Fonds monétaire international dinañ fi teew juróomi fan ci weeru septembre bi di ñëw ngir waxtaane eurobond bi ak ay mbir yu bëri bokk nan naka lañ mën a def ba soqali réewu Sénégal ca jamono jooj nag L'Observateur ñëw ñun ci Amadou Ba nga xamante ni moo fi nekkoon éliment jëruñi ci nguuru Macky Sall ba noppi nag nekkoon fi candidat Benno Bokk na ci élection présidentielle yu nu génn borom la neuf Amadou Ba la neuf la war a lancé parti politique bi nga xamante nag xamaguñu ban tour la koy jox ak ban tànk la war a taxawee enquête yéen kaay moom ñëw ñun ci yorin bi nga xamante ne moom lañ yor wàllum culture ci biir réew mi ci diiru juróomi weer yi nga xamante ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi ci bopp réew mi fal ay nit yu yees waaye nag coppite gi doon xaar ba léegi ci secteur bi lee gisaguñ ko si tabb gi nga xamante ne tabb nañ ko yenn nit ñi ci yenn poste yi politique kese moo alak ñoom ba léegi dégg ñu leen ñu yëy yàbbi ci mbir moom le roq bi nga xamante ne nag foofu lañ leen dëjoon ba léegi ñaa nga fa waaye nag am na ab projet de décret bi nga xamante ne nag dañ ciy proposé benn direction générale bu ñeel wàllu culture tàggat yaram ak journal bii di réew mi sport wax ak ñun ci élimination CAN 2025 nee na Aliou Cissé convoqué ñaar fukki gaynde ak juróom yi nga xamante ne nag ñoo war a amal jongante boobu lee Cissé moom le nag woo nag ki nga xamante ne nag moo di El Hadj Malick waaye dafa fàtte Boulaye Dia Boulaye Dia moom kenn woowu ko